kaso mën na leen cee fekk ñu fekkaat wax ji ci xët mu njëkk la témoigné li journal bi bind moo di nguur gi dal na ci kaw jaaykat yi la sinekaay ne ko ñi état bi di wër ak di leen rëbb mooy commerçant yi bañ wàññi njëg yi ñu leen sant ñu wàññi ko ñeenti téeméeri contrôle ak juróom-ñett fukk ak juróom libération nee ñu contrôleur prix yi def nañu ko démb ci ndakaaru sisir ci jaaykat yi marchandise mu bari muy ceeb bi di suukar si di meew mi soble ba ci pombiteer ñaari téeméeri commerçant ak juróom-ñaari yéenekaay bi nee nañu gars yi convoqué nañu leen réew mi quotidien ñu xamal ne wàññi gi ci njëg yi dese naa jàppandi ci réew mi mi ci commerçant yi fa la mbir ya tege fa ñu taxaw ñum commerçant yi jóge fa ba tax ñu ne mënu ñoo wàññi njëgi yéenekaay bi nee nañu moo di nee nañ buñ ko defee dañuy perte ndax jëndi fukk jaaye juróom xel xalaatu ko lu xel xalaatul moo xew dimbu ca jam ñaajo ko tëjee xëy ko ci xëtamu njëkk di ñuy wax ne jëfi wéyug jëfi bandi moo am ci pôle urbain bu jam ñaajo yi nee nañu dimanche ci guddi ay samba ñoo duggoon ci seen watab 4 x yori i ngànnaay bëggoon na dem dajji ay yi nekk ca jam ñaajo sandarma yi yëg ko ñuy faat am na it yeneen ñaar yu ñu ci teg loxo bés bi le jour nañu tey réer ñu dund keroog ca jam ñaajo ay wëyu yu tegu der ñoo gàddu seen i ngànnaay bëggoon dem songi ay usines yu nekk ca pôle bu jam ñaajo sandarma yi gàntal seeni i pexe baray ci ñoom kenn jàpp ca ñaar ñaari ñaaw téef l'observateur nee nañu moo am ne bu weesoo wëyu yooyu bëggoon a songi usines ya ca jam ñaajo am na it yeneen i bandi yu waajoon ba jekk dem dajji magasin Auchan ba ca Zac Mbao fukki bandi ak ñett lañu woon ñoo ngi duggoon ci woto boo xam ne ca asek naa ko sàcce woon yéenekaay bi ba ñu yeggee ci Auchan ba dal dóor ko ci kaw vigile vigile ya fa nekk daw abal leen ñu dugg ci Auchan ba dajji ko far ba waaye ay këyiti kese la ñu fa fekk seen xool jeex seen yaakaar tas ñu caxat-caxatee Auchan ba Les Échos mi xëyi xibaar yi ci xët mu njëkk dolli nañu ci ne ñoom wayu yooyee ba ñu jógee ci Auchan ba dañoo dugg ci banque bu ne woon ca wet ga waaye foofee mënuñu woon a jote ca koofar ba jackpot ba ca Lonase journal yu bari ñu xëy ndool xëy nañu ko jàpp muy L'Observateur di Les Échos di Direct News ñoom ñëpp xëy nañu di ñu xamal ne liggéeykat ya fa nekk yokk nañu seenu payoor fukki junni lañu leen yokkal ku ci nekk ñoom liggéeykat yi ñu yokk seenuk salaire toll nañu ci ñetti téeméeri travailleur ak ñett fukk Lat Diop ko def les économies ñu injustice gu amoon ca LONASE daanaka ñaar fukki at ci ren moom la corrigé l'observateur tegal ñu ci ne teg na ci jël ñaar fukki billet ak juróom may ko liggéeykat yi ngir ñu dem seetaani coupe du monde ba ca Qatar Qatar googe ak coupe du monde ba ñu fay waajal tribune li mu bëgg a xam moo di ndax footballkat bii di Sadio Mané am na sensu football ca benn match loolee ab laaj la waaye am na beneenub laaj buy sampe ci xët mu njëkk stade yéenekaay li muy laaj moo di bu Sadio Mané footballul nees di lijjantee yëf yi record yéenekaay mel ne ko naan ñu ak luñ def dee nañu gaaw ndax fi mu nekk nii caaxaan baaxee compte à rebours ba door na démb